pas-pas yi nag sëriñ bi mi ngi ko dundale woon ci xasida yi moo tax ku yeesale ci ngay jaar démb rek dama ko wax ne ko daa am lu sëñ Tuubaa ñaanoon loo xam ne lépp yàlla defal na ko ba mu desoon lenn ñu bàyyi la ko fi sëñ bi daa wax ci xasida ak Mawaahibu taalibe bi yëpp a koy jàng habli dawaama wasit salaama waskur xilaama lii wa binaa i wa binaa yi nag moo ci desoon jàng gi mu koy jàngalu ci jumaa ji ci jumaa ci fajar gi ak jàng gi mu koy jàngalu fii di teew moo ci desoon muy wa binaa yi mu ñëw mottali ko sëñ Tuubaa nag léppam noonu la mel wa am si yun sii bi yow mii wa bi xat tayam june day gàccal démb léppit yàlla wan na ko mu bind ko teg uktubu naaxilan min allawhi wa min xalamihi wa fii xurufi lam amin moo tax lu ñu gisagul rek ak àpp ma jotu ko booy seet rek faaw dana yabal ko ko firndeel si yàlla na ko fi yàlla yàggal lool ta may ko ak wér ba fi mu yéenee àggale liggéey Sëñ Tuubaa